kii nekk président conseil départemental bu euh, Sédhiou nekk aussi député kenn ki nekk aussi président conseil départemental bu euh, salemata mais aussi nekk député keneen ki ñu ci tudd aussi tamit ah, député la woon ci douzième législature actuellement c'est le président conseil départemental de Saraya ñoom ñett ñooñu la ñu tuddagun ba fii ne man di wax ak yéen amul kenn koo xam ne ci opposition bi la bokk kun ci tudd amul ndax su amee man danaa ko yëg parce que danañu ma informer mais mais yëf yi dafa war a bar gis ngeen bi ñu yëkkati xalifa Sall ak Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais dafa gaawoon pourquoi pas tudd nañ leen mais yoon na dem ba sër rek doxal li muy doxal su ko defee ñu déglu leen yóbbu leen si kanam yoon donte suñuy collègue lañ yéene wuñ leen ko waaye nag comme dugg nañ ci loolu bu ñu sañoon mbir mi leer loolu daal mooy suñuy taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah accompagné d'une forte délégation Euh, pour répondre à l'appel de Khadim Rassoul, euh, mais aussi transmettre euh, les salutations et la présence de, du président Ablaï Wad, ainsi que de Karim Wad, mais aussi de tous les leaders qui sont partis de la coalition et qui ne sont pas venus. nous étions porteurs de ces messages et de ces salutations pour le calife, mais aussi pour les autorités religieuses de Touba. Oui, vous savez, nous habitons Touba. Euh, nous savons que les investissements qui devaient y être réalisés ne le sont pas. Maintenant, il est curieux même qu'à la veille des élections locales, le président vienne euh, inaugurer euh, des infrastructures. Je pense que la population de Touba doit être prise, euh, doit être prise au sérieux. Euh, il faut que les investissements réels qui doivent être faits dans, ce, dans cette grande ville soient faits. Touba est la deuxième ville du Sénégal par sa population.